bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiam bi ihsaan ila din gannaaw bi sant yàlla julli ci yonent sallallahu wa sallam ñi ngi am mbégte ak kontante ci ñëw ci jataay bi nga xam ne ñu ak yéen ñoo ko séq ñoo ko bokk muy jataay boo xam ne dañoo ñëw ci ñaari kasket benn bi mooy xalif général de Mouride ni ko sëñ Mokhtar Sarr waxee ndax fépp fuñ teew mën nañ ko faa teewaaleel ñaareel bi ñëw turutu AIS muy al jamia al islamiya li xidmati tasawuf association islamique pour servir le soufisme muy kuréel gi boole tarix yi nekk Sénégal yëpp ngir servir le soufisme ñu yàgg bokk ci kuréel gi sëñ Babacar Mbuub dëpp bi bi mu taxawalee mbir mi mu taxawal la ma woo ma dañoo bëgg AIS bokk ci ma ne duggal ci biir maa ngi ci biir lépp luy defar mbaax wala muy defar jikko yi ñun ñu ci biir mu mel ne que liñ fi wax lépp dégg nañ ko mooy ñun ñëpp dañoo bëgg jikko yu baax dañoo bëgg jikko yu rafet loolu lañ bëgg mel na que jataay bii tey ñu taxaw war nañ ci jële am njàngat mu màgg mu rëy ndax kalimatu laa ilaha illallah wala kalimatu laa ilaha illallah moo ñu fi dajale tey tayaaraat yëpp muy courant yëpp ak tariq yëpp tey ñu ngi daje fii ci mbaar mu tuuti moo xam ne kenn ku ne fa nga jóge ëpp na fii kon lii ab leçon lañu war a jox ñu jàngat bala nga naam ne fa moo ñoo war a njëkk suñ biir ñun jullit ñi defar suñu diggante yi defar ko defarin woo xam bu ñu ca paree noon bu ñu bëgg a attaqué wala bëgg dal suñu kaw bu ñu jógee mu yomb ci ñun abi dar al dafa wax ne yontu salaa nee na yaa ibadi inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu baynakum muharraman fala tadaalamu li ñu wax ne góor jigéen faramasoo lépp tooñ yàlla sunu borom subhanahu wa taala ak zulmu la maanaam ala xaqillahi taala subhanahu wa taala lépp lu ci waay def yaa ngi tooñ yàlla sunu borom subhanahu waaye ndax loolu rek des na am na beneen zulmu beneen tooñaange boo xam ne suñ biir la nekk ñu musulman yi ci biir réew mi Sénégal te zulmu googu muy tooñaange googu li fekk réglé wuñ ko suñ biir dara mënut a sotti ndax yàlla daana falaata zaalamu bu leen tooñante seen biir ndax damaa xaraamal ngeen tooñal seen biir Matar am na ko mu dégg léegi mu ne am na ko xam daa taxaw dañoo saaga imaam yi avant ñuy saaga imaam yi lañ njëkk a saaga yor naa fi benn audio boo xam ne Sidi Hadji Malick si Cheikh Ahmadou Bamba ah, Cheikh Amadou fuuti Tall ñëpp lañ saaga ci audio boobu te ñoo ñëpp ci ñoo ñëpp ay imaam lañ ñoo ñëpp ay ulama lañ ay ay melañ te loolu lépp dañ leen a tooñ dañ leen a saaga ñëpp di gis loolu am ñu ko def kon dama bëgg ne bu fekkee ne ñun dañoo wax ne dañoo bëgg ànd nekk benn nañ ànd ñun ñëpp jàppalante watawaasaw bil xaqi watawaasaw bi sabr kon loolu na ko Sénégal yëpp xam audio yi mi ngi tasaaroo dañoo saaga Seydi Hadji Malick Sy si duñ Touba saaga si Amadou Fouti Tall tudde leen ay mécréant wala yaasu billahi taala loolu fi lañ koy waxee ndax fi mina sala tribune la boo xam ne dañu a wax fi lépp lu ñu war def ngir ñu dimbalante suñu biir def dëgg te yàlla suñu subhanahu wa taala ñu mel noonu liggéey ci réew mi ku bëgg a taxaw di leen saaga ak di leen yóbbu ay mécréant wala yaas billahi taala waa jërëjëf jërëjëf ma am Cheikh ñu sant ko bu baax gërëm ko ci tariqatul qadiriya yàlla dogal mu am tukki boo xamante ne daf ci dem moom moo waral man ma taxaw di jël kàddu ci turu xalifat al aam li tariqat al qadiriya muy cheikh bekaay bekkaay waaye sama kàddu day dellu ci ñi ñuy wooye ne ñoom ñooy sëriñ si ñuy wooye ne ñoom ñoom ñoo fi wutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ne al ulama warasatul lan moo war a nekk seen taxawaay tey tëju la wala toog ñu naan diw jafe naa gis walla diw bu dara xewee lan la war a àddu ñu toll ci jamono joo xamante ne jamono ji dafa lëndam torop ñu ñuy wooye ne ñoom ñooy sëriñ si tey lii seen mbir la ñii nekk ci terrain bi tey dama jàpp ne dafa am ñu leen waroon a jiitu muy ñaan muy ñu ñuy wooye ne ñoom ñooy sëriñ si tey parce que kan lañ fi toogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee ne looloo am yonent bi lépp loo xamante ne daf ko woote woon wala lu islaam woote moom moo doon jiitu nekkoon koo xamante ne ku yomboon a gis la ci bu fekkee ne xare dafa am bu fekkee ne tamit addu ci loo xamante ne ci mbirum diine la du woon ku jafe kon sama mbok islaam ñi fi nekk ci senegal kon islaam mi ngi jooy nañ jóg taxaw addu nañ jóg taxaw jël suñu temps suñu alal ak suñu lépp def ko ci bu fekkee ne li ñuy wootee ne ñun ñoo fi wutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme dama fee nekk ak samay mbokk ñoo xamante ne ñoom ñëpp dañu war a jël kàddu kon dañuy yemandi fii suñu kàddu parce que man waruma woon a wax ki waroon a wax mooy bu Muhammad dañuy yemande fii asalaamaaleykum wa rahmatullah ñun universitaires yi ak jàngalekat yi lii ñun la war li nit ñuy xeex nii ni ma ko waxee sëñ Babacar biñ ma seetaanee diine ak jamono may wax ci lii loolu moo ma tax xamanteeg sëñ Babacar Mboup mu à travers imam Diop ak euh, sëñ aadama ma ni leen li ngeen di def nii ñun ñoo ko war a jiite ndaxte yàqute gi jéggi na day wa te ñun ñi nga xam ne surtout ñun ñooy jàngalekat yi euh, jiite kuréelu jàngalekat nga xam ne foofu lañ bëgg a jaar ci ndaw li kon ñun lii ñun ñoo ci war a jiitu li ñu war a leeral nag mooy bu ñu naxante suñu bopp ñun Sénégal guerre lañ déclaré Sénégal déclaré ko diine islaam jaar ko ci tout tànk yi ak ndaw ñi te tout tànk yi ak ndaw ñi ku leen wax tudd jàngalekat yi ak ak ak ñi ñuy jàngal ñuy leeral ni programme yi nga xam ne ñun ñu ngi koy dénoncé man ku ma xam-xam ne bokk naa ci leader syndicaux yi xeex programme yi ñu dugal genre ca ministère éducation nationale di dugal éducation sexuelle tudde ko ay ay ay ay xeetu euh, aar xale yi alors que dañoo bëgg a yàq suñuy xale yu jigéen loolu mooy dëgg léegi nag am na ay programme yu ñuy def ca France mën naa cee joxe benn leçon boobu joxe naa ko ci télé ci ñu ko seetaan ñu tëddee ko sperme et éjaculation ci tout tànk yu amagul fukki at muy donc man yu ak daanu ci xale yoon xamuñu luy loolu loolu lañ ca jublu mooy yàq sunu askan moo tax ñun ñu war a jóg ñun waa Sénégal léegi nag li ñuy wax mooy communauté mondiale LGBT ñoom organiser wu nañ am nañ ay moyens ñun nag lan lañ def ak lan mooy suñu plan d'action pour que ñu mën a taxaw fippu pour que loolu bañ a am suñum réew loolu mooy am mais su fekkee dañoo toog di ko dénoncer te defuñu benn jéego teguñu benn stratégie ñoom loolu ñu bëgg dina sotti ci sunum réew bu ñu fi nekk na noo du fi mës a am bu ñu taxawul tem comme nii ñu ko organiser nii képp kuy kuréel képp kuy sénégalais dépassé na imam dépassé na euh, képp ku mën a doon képp kuy sénégalais di jullit war ngaa mën a taxaw ci lii pour que ni ñu bëggee yàq suñu askan du fi amee parce que barki Dembo Ndiaye t-shirt boobu ñu sol imaam ya demoon man dama koy dénoncer duñ leen may doole. loolu tax imam Dramé mii nga xam ne am na émission bu muy def ca 2STV ca kookee di nuroog mbaam xuux xas suñuy imaam xas suñuy euh, kilifa diine kooka waratu la bokk moom émission booba muy def ci 2 comme ni ko comme ni ko def parce que nag. ñun réew mi comme niñ ko koy foofu laay tëje réew mi mënuñoo naxante Wally Seck loolu mu def dañuy proposer télévision yi nañ ko boycotté élèves élèves Sénégal dañ ko boycotté xale yi tout tànk yi bu organisé grand théâtre bu ñu dem na ko ñëpp boycotté won ko ni réew mi du ñu nangu kenn di fi nekk di sësal ngóor jigéen ci sunum réew loolu rek laa bëggoon a yokk di sant ñëpp di leen gërëm